yaatul aousubillahi wa shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaay wal mursalin seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokku jullit yi mbokk internet yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ñëwaat ak yéen ci chaîne chaîne bi nga xam ne moom la ñuy wax coranique les grands secrets nga xam ne waxtu nekk dañ ci séddoo ak yéen yenn ci secret alquran yi ak turu yàlla yi nga xam ne dana yombal dundu doomu aadama yëpp ci zaahir ak ci baatin ak mboolem yëngatoom tey jii nag dañ leen di indiloon secret bu am solo muy turu yàlla bi nga xam ne moom la ñuy wax yaa mu mujjibu nga xam ne turu yàlla la boo xam ne incha allahu képp koo xam ne danga ngaa dëgmal mbir bëgg mu sotti ci jàmm wala nga dëgmal examen bëgg koo réussir wala nga nekk ci ay tolof tolof wàllu xaalis bëgg mu faju wala nga nekk ci ay mbir ay jafe-jafe yu xat. bëgg yàlla génnee la ci ci jàmm del wax yaa mujjibu quatre-vingt-dix-neuf fois heure boo jullee suba nga wax ko quatre fois incha allahu képp ku ko def incha allahu da nga gis li nga bëgg mu soppeeku ci jàmm ci ni nga ko bëggee ci anam bi nga ko bëggee te da ko jariñoo itam ñi ngi sant ñi ngi gërëm di leen wax na ngeen abonné ci seen chaîne bi ngir di ma ne séddoo yeneen ci suñuy vidéo di ñaan rek ngeen partage si vidéo bi yal na yàlla def jàmm ci Sénégal def ko ci àddina bi yëpp yal yàlla defal leen jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu